إني أعوذ بليلى مسلوتنا من كل لاب إبليس ما ñàkk rahmatullah moo tax ba yoonam dëng na إني أعوذ بليلى مسلوتنا من كل لاب iblis ma ñaaj raamatulaa moo tax ba yoonam dëng naa bismillaahi laay dale waaju ca doore dootale na ngeen xerawul wax jile may bëgga wax ci sayxu naa bismillaahi laay dale waaju ca doore dootale na ngeen wax jile may bëgga wax ci sayxuna ma wut kayit te soosi daate kañ fi waajaray bi daab dundal sunnas muhammada waaju ko weddi sanku koogaa di seyxil muntaxa sibdul xadiimi zuutuxa moo sell moo dañal saxa bamba ko def mursiduna koogaa dañal saxa bamba ko def mursiduna dem nga wataak safa añ nga mustafa donay qadimul mustafa yaay saafaras qulubuna lil muntaxa awsil suróor yow lañu doon junju ca biir yaay jant yaay gindi kuréet yaay xalifa mbégteg mu naam mboolem xalifa yëfi daa sàmm si yoonu Ahmada yow lañu jébbal seeni ndaa moo tax manaa la asxinaam bamba di njiite latqiyaa yanam ya yéemi lanbiyaa tiisam ya sut yuy lawliyaa natuy gabong ya mettina galwaaña jamba tiis romb nga réewi kabla bees del si tiis dootunu gis dara dexeñ mi tëm ña yàgg naam moo fi yaxal lu tax manaam murit du mus jëhannama ca bis ba xeet ya ñépp naa ku ni fegal asaabanaam moonu defal ngeen gi xiraa ñuy naan ca déegi kaw moonu jamal jëw fal faraasa datan ba aljanaam tànn nga ruuya balaa yow maa lastu awwalaab wuyul indal malaali lee def sa fiihinaam yow mii donay waraa yaa nuy ci sa yaanu kaweel bilam tiraaxa rijaali rabbina yow mi tafal ci Mustafa defal ci Muntaxa sifaat la Mustafa muridina busraa lana yow tawil far ko defal sa toqi daaya mag dereeti suhada seex muntaxa fegal ko daa may ko sifa su dóorina maa tambale woon basmala yeggale naa am dala ma sant yàlla sant la way ma def rabiyu naa man mi muhammadul amin may may ngërëm yu dootu neen te may ma ak yokku fegal ma lor ci àdduna wakirlu naa ci rabbana sëlmal ala sayidina salla alayhi rabbuna kama stafa taxawluna wakirluna ci rabbana sëlmal ala sayidina salla alayhi rabbuna kama stafa taxawluna